passeport am diplomatique. Mhm. mu ne leen li nga xam ne yor ma ko nu ma leen koy mënee jox moom tamit ñaawlu na loolu. Mhm. waaw effectivement foofu nag moom euh, euh, muy ma jàmbal contre naa ko trop maanaam comme ci defante ci mm. politique mais bu waree tukki bu waree génn réew mi war nañ buñ koy arrêté wala ñuy jël ndaram war nañ ko ko notifier. Mm-hmm. man loolu laa gëm. Mm-hmm. da nga war a dem. lu tax demoo lii moo tax demoo man daa ku mënti doon nag man képp ku ñu war a arrêté nañ la notifier lu tax nga war a waroo dem bu dee yoon daf lay topp ñu ne yoon daf lay topp wala dafa am ci ay investigation yu ñu nekk doo génn. Uh-huh. Uh-huh. mais nañ la ko notifier mooy dëgg man loolu laa d'accord. Uh-huh. gis nga nit tamit gis nga lu ñaaw wala lu baaxul wala lu rafetul bu ko kenn essayé. boo ko essayé tamit gis nga sénégalais yi du ñu wax dara dañuy bàyyi ba moment bi ñu war a def ñu def te man dama jàpp ne ne boo nekkee ci kilifa dee ko wax dëgg. sang wu tedd bi ku ñuy roy moom la ñuy roy muy Seydina Mohamed waaw léegi sang sang wu tedd bi laa wax moo gën Sonko moo gën Jomaay moo ma gën moo gën ku ku ñuy wax waaw wala déet. Mm-hmm. te lu mu wax yàllaa ko ko wax. Mm-hmm. bu dee sang wu tedd bi moo mën a toog wax gis-gisam seydinaa Alioune jóg ne ko ah yaay sunu kilifa yaay sunu lépp mais li nga wax dama la doon laaj sa wax la wala waxu sunu borom. bu dee waxu suñu borom exécute bu dee sa xalaat ñun dañuy xalaat ne yow yàlla def xisa wàcc ne Omar li nga wax loolu la waa léegi bu dee sang bu tedd bi ci boppam loolu du bon pour pour leçon la pour wane ne nit ku am maanaam lu kenn mënul wala di wax lu kenn mënul wala di def lu kenn amul unanimité lu looy wax lu ñëpp d'accord mën ta nekk kon ma jàpp ne ne noonu sunu borom jàngalee ñu ko ci sang bu tedd bi waxuma laak jomaay waxuma la ak waxuma laa ak keneen ak keneen mooy dëgg alalu yàlla la képp ku am dëgg jox ko dëgg ku amul dëgg nekko nekkoo ci dëgg kon ma jàpp ne ne dans les normes képp ku ñu bëgg a génn réew mi nañ la notifier bu dee yoon daf la topp wala yoon daf la war a topp wala ñu ngi def investigation wala nangam nañ la ko notifier mm. buñ la ko notifier la wàccoon nañ yow mooy doo dem. Mm. te loolu mooy dëgg mais rek dem fenn ñu jàpp la waroo génn lu tax waroo génn. Mm. dara notifier ko loolu amul man de d'accord ma. luñ lay fépp fuñ lay war a arrêté. waroo génn réew mi nañ la notifier lu tax waroo génn parce que yoon dafa nekk ci say recherche wala dafay nekk ci say investigation parce que am na détournement wala am na yoo xam ne ñu ngi la koy jiiñ comme ñu ngi la koy jiiñ doo génn loolu d'accord naa dañuy investiguer bu ñu investiguer nag ku ñu war a investi investiguer doo génn parce que am na ñoo xam ne ne buruxlu nañ ba dem du dëgg léegi nag am na ñoo xam ne ne moom seen njaboot ga ak yépp lañ boot dem génn réew mi ñooñu xam nga daw nañ léegi nag pour jëliwaat leen dina nekk mais du yomb kon loolu yëpp xam nga tubaab yeeg ñun bokkuñ kon looloo tax nag kuy war a génn fenn ñoom dañ lay peut-être dànkaafu nga bañ a génn mais nag. nañ la ko notifié waaw am am yàlla borom moo doon tëb di dal <laughs> doon wane fit. ah danañ laay léeg la xam ngeen. ci daal te Sonko ay preuve mënu jox preuve waaw déedéet. non non <laughs> mais xamoon nañ ne 94 euh, milliards yooyu. liñ doon wax ci dag yi ñëpp xam nañ ana dag yi. mais bu même bu nekkoon dégg mais ay preuve comme sànq yaa ngi fi wax waxu preuve. lépp looy wax rek da nga ci indi preuve. waaw mais laajoon nañu Sonko preuve mënu yooyu. Mhm. comme dañ ko ko jiiñoon. léegi loolu dina nekk ci kaw table bi. loolu bés bu ñu demee assemblée ñu voté loi loolu dina leer ku ci am dëgg ñu xam mhm. man loolu laa wax dama comme moom waxoon nañ jiiñante amoon na wala nangam na indi preuve moom it mu doon tëb di daw. kon daa daw balaa ñu ko. léegi nag man bu ma doon jàpp jàmbaar mhm. comme yaa fi nekkoon man gis nga nag kaay ma wax la leen xam nga fu ma gëmee nit bu méttee nga toog bu naqadee toogal jaañ man laa wax. je pèse mes mots. Uh-huh. je défie tout le monde. Sénégal ba mu ñëkkee métti ci mbiru Adji Sarr laa wax li may wax àdduna ak may dégg ku ma weddi bindal ku ma weddi vérifier mbaatu jàmbaarte boobu la Pastef am. déedéet man xaw ma lu jàmbaarte mais dëgg ma laa wax. Hmm. li taxoon ma gëmoon la ma doon def mooy Ousmane Sonko laa wax biñ ko jiiñee viol ñuy yekkataan mag ñi di ko wax ci xale dama ne kenn laa wax ñemewul dem ci débat télé pour defendre ko avant le 12 février 2021 archive a ngi fi de moo tax man lu waay di wax. bàyyi ci xel boo tàppee léegi le cinq ba le huit ci la les journal si écho bind ci am na euh, euh, kilifa gu yegg ci xale le cinq ba le huit ci la maanaam ci lañ ko bind le cinq bindaat ko bindaat ko ba le huit dama ne Sénégal je défie tout le monde parce que fii maa ngi leen di défier kenn ñemewul toog ci taabalu télé wala ci rajo wala ci audio wala ci dara défendre Ousmane Sonko benn man. li may wax xam nga li may wax àdduna ak may dégg ku ko bind dagg ko nga génnee ko kenn du ma démentir benn man maa taxaw publiquement dem défendre président Ousmane Sonko ci biir défendre ba ci biir télé ba lañ may woote te kenn ñemewu foon dem gis nga tey neex na nag tey neex na tey neex na moo tax bëri na ñoo xam ne ne ñu ngi wane seen bopp di wuñ seen njàmbaar ba njàmbaar jotee wane wuñ njàmbaar ñun nag dañuy wane njàmbaar ngor gëm yàlla. ci ci bu muy ci bi muy métti. ci bu muy métti bi muy métti. voilà euh, ah, ah. juste foofu Djibril Diagne je rappelle ñu ngi ci seen débat politique euh, ci Dakar Live vice <laughs> euh, coordonnateur Pastef Médina président mouvement Yërmande moom Djibril mu ngi wax ci wàllum njàmbaarte maanaam ci bi muy métti mu ngi jàppale Pastef ba Pastef tey mu nekk ci boppu réew mu Sénégal Djibril ndax yow am na post bu ñu la dig wala bu ñu lay waaj a jox maanaam ndax yaa ngi gis sa bopp bu baax ci parti Pastef. man joxuñ ma defaluñ ma dara. alors te yow yaa ngi sol ci Pastef. waaw man xam nga lu ma jàpp def naa la ma waroon def pour askan bi def naa li ma waroon def ci Pastef mais mbiru nomination du ci mbiru nit mbiru sunu borom la yàlla mooy joxe. Hmm. jomaay joxul boppam Sonko joxul boppam Sonko juróom benn at ci ginnaaw tëddoon na lalu hôpital ku la ne woon dina jóg doo ko gëm. Hmm. dañ ne ñaata fan mu tëdd ko dans le coma. Hmm. presque lu mot weer ak lu tegal. Mhm. Sonko kenn xamul ne dina dund wala dina dee. ba ñu bëri sax buñ la ne woon tey sonk wàcc na liggéey doo ko weddi ci coono gu mu nekkoon ku ko fi ku ko téyewaat sunu borom ku koy fexe ba mu ñëwaat ba tey yor lii sunu borom kon man moom laa yaakaar moom laa gëm ak samay waajur. ak sama mhm. sëriñ sëñ mhm. baabakat si radiyallahu taala li ma gëm mooy ba mu méttee damaa taxaw te daw ma ne mosuma génn réew mi. mosuma daw palaatoo kenn mosuma woo fenn te dew ma te ma wax la leen amul benn combat bu Sonko mënee gestu gisuma amut tribunal ba tribunal daj li may wax xam nga sénégalais lu métti métti boo waxee tamit archive yaa ngi fi tribunal ci Adji Sarr ci Mame Mbaye ñaa même Mame Mbaye Niang bi muy mujj a ñëw tribunal Sonko di mujj tribunal te ñu dóor lacrymogène ci biir enceinte tribunal bi fa la mhm. ma fekk. Barthélemy ngi ah hé tey tey kàq gi yow yàgg ngay xeexal Pastef ah, ma gis tamit euh, doomu mën a sax euh, ci sa ñi daan ñu bëri ngi egg seen poste waaw waaw waaw dama jàpp ne rek jotagul wala yàlla dogalu ko loolu laa gëm jotagul wala yàlla dogalu ko wala mën wala du waaye ñu doon xeex yëpp daal mais ñi am nañ poste déedéet xam nga kenn ku nekk ak fi sa niveau toll sa yàlla. Mm. ñam na ñoo xam ne xeexal nañ leen parce que am na ñenn ñoo xam ne am na ñu leen taxaw am na ñu leen taxaw biir Pastef man awma kenn ku ma taxaw Pastef. da ngaa bëgg Pastef rek. Mm, ok mais aw ma ku kenn koo xam ne ne sama ndëgër laay la wala sama nen te ñeneen ñi ñëpp am nañ ndëgër laay man xam nga ku ma am Pastef. Mhm. yàlla ak yónnante bi ak sama sëriñ sëñ Babacar Si moom rek la am Pastef moo tax nag la ma nekk dama ciy def la ma war a def. bénévolat. jeex na. Pastef nga nekkee foofu. Ah, merci beaucoup léegi nag danañ la nome duñ la nome duñ la jox du maa ngi dund wala dund ma yàlla jox na ma njaboot. Mm. alhamdulilah maa ngi oto bu may dawal maa ko moom maa ngi kër maa ngi compte kon la maa ngi dund wala dund ma. Mm. kon lu may waxati nit àdduna nit day doylu. yaa ngi sant yàlla yaa ngi sant yàlla comme ñëpp kon nag am nañ ko am na ñu jafe. Mm. waaw léegi nag bu la yàlla joxe loolu doo sant yàlla mm-hmm. bu ñu la joxee bu ñu la joxul yaa ngi sant yàlla te sant rek moo fi wetu nag mm-hmm. nit lu mu am na ko sante yàlla parce que nag est-ce que xam nga ne dinaa la wax leen peut-être demaguma émission ci fenn <coughs> législature bi ñu jëm mm-hmm. est-ce que xam nga am na ñuy doon député duñ ko yeggali te duñ ko yeggali duñ ko yeggali mm. waaw foo ko teg <laughs> eh, xam nga lu tax man lu ma wax dinaa indi firnde Ousmane Sonko laa wax le premier octobre deux mille vingt-trois xam nga li may wax archive la de. Mm. dama ne woon mbindeef guy dund ba mu doon candidat ci réew mii du am xam nga Sénégal loo fi wax nit mm-hmm. nañ ma dem vaar. Mm-hmm. vaar dafa xew ah, kenn du ma vaar. le premier octobre laa wax mille vingt dama ne mbindeef guy dund ba Sonko nekk candidat ci réew mi du am bu amee ma dagg sama kuréelu taalibe Cheikh wala mën a santatuma jaañ lii ma waxoon nii ni ma la ko waxee noonu laa ko waxee woon le premier fi kii laa wax octobre laa wax deux mille vingt trois ñu ngi ci octobre waaw wala déet. Mhm. deux mille vingt trois. Mhm. boobu duggaguñu élection. Mhm. boobu xamuñ ndax dindi nañ euh, ñu ngi wax ne dugg nañ ci liste bi génn na ci liste bi. ci laa taxaw. mooy bi euh, bi ñuy dem euh, fële na la Ziguinchor. di ay génne nañ ko dugal nañ ceeg saaba si war ko àtteeg nang boobu laa wax lii ma wax nii est-ce que doon na ko du xam-xam de mais lecture la lu ma gisoon. moo tax ma ne lii ma la wax it bindal tee kenn du ko dindi. du xam-xam nag de du baatin du dara mais gis nga àdduna lecture la. jàngat daal jàngat la nit day jàngat li ngay jàngat yàlla def ko. Mm. wala li ngay jàngat yàlla won la ko parce que looy wax rek waxal sa akulaay taala bi may ne président Ousmane Sonko barke sëñ Babacar Sy violé wu le 12 février 2021 lu ma ko wax loo te li ma waxoon am na wala amul. waaw wala déet. Mm. déggoo ma ne la kenn ñemewul dem TFM laa wax de kenn ñemewul dem TFM laa wax kenn kenn ba ma demee ca débat boobu ci la ñeme dem TFM ñëpp na. yow kon yow dalaa leeroon ni moom violé wul. Ah, waaw xam nga lu tax. la leeroon xam xam nga lu tax la ma waxoon du dëgg xam nga lu tax. dalaa leeroon. daf ma leeroon xam nga lu tax waaw xam nga lu leeroon. Mm. gis nga nit éthique la am gis nga nit munoo wax ci li may bëgg a wax nii waxuma Sonko di du juum. waxuma du wax lu mu war wax. Mhm. waxuma du def lu mu war def. mais da nga ne violé wul. dama ne violé wul xam nga lu tax. nga teg ko fan. xam nga fu ma ko tegoon. Mhm. nit ku ne mosuma lekk dërëm bu ma lew te nekk naa 15 ans impôt et domaine ku du lekk lu lew waxuma du juum de mais liñ la jiiñoon wala liñ la bëggoon jiiñ mënta nekk mooy benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon. juróomi yoon ak ay pistolet. Mm. tu te mm. loolu lañ waxoon est-ce que loolu xel mënoon na ko nangu. Mm. waaye xale bu jigéen bi demoon na ba wax. déet déedéet waxuma déedéet dama ne. viol doon wax man viol doon wax. man waxuma lu xew foofu. loolu lijjantiwuma ko man li ma wax mooy la ma doon wax mooy viol mënta nekk. te amul. ah ci cas viol boobu la ñu nekk di waxtaan. waaw déedéet a wax ne lu tax ma ne la lii lañ waxoon. lii laa ci tegoon parce que firnde danga nga ne ma lu tax nga am firnde. yow fekkewu ma man fekkewu ma. man deew ma ñun ñaari. waa. waxuma ak Sonko deew ma ak Sonko tooguma ak Sonko lu tax nga ñeme taxaw publiquement ci moment boo xam ne kenn ñemewul dem. défendre ko yow nga dem defendre ba pare wax fa wax gu rëy ne barke sëñ Babacar si. sama sama sëriñ sama wasile sama maam. ne lii amul. mais loolu lu la ko wax loo ngëm-ngëm. ngëm-ngëm nga ci am. kon noonu nañ ko mën a. léegi ngëm-ngëm boobu nag. ngëm-ngëm goo moo am nag moo may dimbali ci lu ma war a def wala lu ma bëgg xam wala lu ma bëgg a kii rek dama koy wax ku ma mere jamaa fu ku ma jàppale jamaa fu li ma gëm dama koy wax parce que nag dama jàpp ne lii moo mën a nekk gis nga àdduna defal li nga war a def. Mhm. ku deful li nga war a def li nga war a def di nga ko def sunu borom la mu war a joxe dina la ko jox. foofu laa ko jàpp te loolu laa gëm loolu laa jàpp ci euh, politique te duñu ko changé. mais à l'avenir du ndee nga yaakaar xëy na Pastef dinañ la jox benn poste. non déedéet man xam nga déedéet déedéet xam nga man li ma wax ne ne. Mhm. kenn laa am muy yàlla ak yónnante bi sama sëriñ sëñ Babacar. Mhm. loolu laa am Pastef aw ma fa dara ku dul ñii laa fa am léegi nag lu ma fa amaan. ak coono bi nga ci daan coono yow. waaw effectivement coono ku ma mën a coono man comme parce que nag. man mosuma toog ñaari fan ñetti fan. xeex nga ku la gis xam eh, waaw loolu moom kay li sama paat na poto xeex naa moom man amul benn combat. Hmm. est-ce que xam nga ne ci Cheikh Omar Diagne mi ci lañ ma dugalee kaso. man mosuma police dama doon dama doon romb rek kàddaan sax bu ma koy wut damay tiit. Hmm. waaw waaw pour wane ne man moom. mosuma jublu xeexal parce que ba dugg ci kaso. wala ak yeneen jafe-jafe ak tamit man sama bakkan xajoon na ci. Hmm. ah bien sûr amuñu dee. est-ce que xam nga ne. ma ma révélé leen ma wax ko. waxal oh, ñu lay dégg. jour bi ma génnee TFM est-ce que xam nga ne woo nañ ma proposé ma 15 millions ne ma soppil sa wax. Ah ah, <laughs> man dama waxul rek moo tax ma ne nit nday gëm yàlla parce que xam nga lu tax sama maam bi ma yar dafa am lu mu def ci man muy éthique gis nga ngëm-ngëm daf ma ne bul bul maanaam bul mer wala nga xàddi ba naan putit dinaa la wax benn naan bu mu la tax a naan petit. merci beaucoup àndal ak sa ngor yàlla du toujours dina ñëw. Mhm. dinaa la wax benn xisa rek ngeen baal ma dafa am benn góor goo xam ne ne dafa xiifoon amee njaboot yorul lu mu jox njabootam toog lu ay semaine kenn lekkul kenn naanu mu jaaxle lool mu ne léegi man benn jafe-jafe laa am mu ne ma mu ma sama sama njaboot gii ma yor te ñu ngi feebar bay ñu ngi xiif bay bëgg a dee mhm. est-ce que mënuma leen dimbale. jël sama mbaam mi dem jaay ko bu ma ko jaayee ñu dund ci mbaam mi nanguwul ku ko war nanguwul liggéey mbaam mi dafa aay gaaf mbaam mi gémmiñ gi daa ñuul ku mu yund ci kër gi nga dee mbaam moom ku koy jënd yow da doo ko jënd xam naa keneen du ko jënd mu ne damay jël mbaam mi dem di ko jaaye ji bi mu demee di ko jaaye ji ca daral ba fekk fa sunu mbokk law bay wax leen ko law bi ne ko ah yow li ngay wax nii ci mbaam mi boo ko waxee kenn du ko jënd booy jaay ne li may jaay baaxul du liggéey nangul ko ko war te dafa ay gaaf ku ku feebar ci kër gi bu la yónnee nga dee ko koñ mbaam moom du ko jënd. dellowaatal sa mbaam paa bi ne leen man lu tax may wax lii parce que damaa gëm yàlla dama lay wax li nekk ci mbaam mi xam nga loolu gëm yàlla la ñu toog ba 18 heures paa bi di ñibbi dirit benn 4-4 taxaw. Mhm. ñeenti nit wàcc ay ponkal ne ñun de mbaam lañ soxla woon. góor gi nag gars yi ne ko ah am na benn woo góor yoo xam ne day jaay mbaam mais mbaam moom da jaruti jënd parce que li mu wax ci mbaam mi kooku moom ku ko bëgg doo ko jën ku bu fee maanaam ku feebar bu la yundoo nga dee dafa ay gaaf nanguwul liggéey nangu dara kon kay mbaam moom amul njëriñ. Mhm. ñu ne ko ñun mbaam moom lañu soxla xam nga lu ñu soxla ci mbaam wool ñu paa bi ñu ñëw paa bi ne leen jur ñeenti junne laa ñetti junne laa koy jaay ñoo ñooñu yëkkati ñetti junne jox ko paa bi dem bay dem ñooñu woo ko ne ko dafa am ñun ay sàcc lañ dañ ñu xoolaloon ne ñu dañuy seet ku gëm yàlla ñu jënd mbaam suul bopp bi kenn ku nekk ci ñun yëkkati ñetti million ku nekk joxe benn million du ñetti million ñu jox ko ku gëm yàlla mu ñaanal ñu yàlla ñu jóge ci sàcc paa bi jël xaalis bi ñoom kenn ku nekk yëkkati un million jox ko mbaam jox ko góor gi léegi paa bi ñaata la am trois millions quinze mille lu ko ko may gëm yàlla moo tax ku wakiilu ci yàlla gëm yàlla yàlla mooy ñëwal boppam. Mm. pourtant métti woon na. Mm-hmm. sa njaboot di xiif ñii di feebar ñii di nangam nga sonn lool mais terewul mu am honnêteté am ngëm-ngëm. Mm. ngëm-ngëmam boobu nag moo tax tey lu mu bëgg am mu am ko moo tax ma jàpp ne nit ñi nañu gëm yàlla xam ne li nga war a am. Mm-hmm. du jomaay du sonko du kenn sunu borom dala koy jox ala kulli dala ko jox kon nag nit ñi nañu delloo seen bopp ci yàlla xam ne kenn fii kenn du joxe kenn dara lu waay jox nit rek sunu borom moo ko nam loolu laa gëm loolu laay def moo tax man la ma jàpp ci passif dama ci jàpp taxawu leen jàppale leen mouvement yërmande bi lu ko waral doo ma wax lu indi yërmande. yërmande gi lu ko indi mooy sunu président Ousmane Sonko ba mu tëddee feebar. bi mu tëddee un mois et quelque. tëdd hôpital ñuy ne dina dund dina dee. Ahmed Suzanne Camara ak waa benn Bokk Yaakaar. am ñuy génn ci palaato tele yi ne yàlla na dee am na fi walla mu fi ma ne nag soxor bu demee ba am ba nit tëdd feebar bokkoo leen gis-gis ci politique nga ko yéene pour mu dee kon soxor am na. ñu nit waa Pastef am na ci ñoo xam ne soxor nañ soxor goo xam ne ne warut loolu nag moo war a indi yërmande mooy dañu war a di yërëmante du dëgg ku bokk Pastef ak ku bokk APR ñun ñëpp benn lañ. bokkuñ gëm-gëm bokkuñu gis-gis mais taxul ñu war a yéenante lu bon. Mhm. man nañ yéenante lu baax defalante lu baax du tere nag defendral sa camp ma mhm. défendre sa camp ñu bañ ci wax lu ñaaw di def lu ñaaw loolu laa gëm ci politique loolu moo ma dugal ci politique. Mhm. man honnêteté ak éthique laay dawal ci politique xaaruma ci dara. gisuma ci dara yar teggin wax lu baax def lu baax te loolu laay safoo xanaa loolu ku ko def yàlla tôt ou tard bu buñ la joxee buñ la joxul. na yàlla koro gërëm la. askan bi gërëm la doy na sëkk bu la askan bi gërëmee loo bëgg di ko am parce que ñaanu askan bi rek doy na sëkk man éthique boobu daal laa gëm ci politique looloo tax ma ne nekkal ci li nga nekk def li nga war a def li ci des bàyyee sunu borom yàllaa ko moom. Euh, alors ñu jeexalee waxtaan bi ak euh, ëllëgu Pastef ndax yaakaar nga ni yow en tant que euh, vice coordonnateur bu bu Pastef Médina ndax Pastef digle yu muy digle dina ko mën a te tenir fii ak juróomi at wala lu ëpp loolu. non bu gëw ma ne nag lépp lu ñu wax dinañ ko mën loolu mënta ne xam nga loolu moom it nit buy wax day wax lu mu lu loo xam ne ne comme li ma wax archive dama ko ragal <coughs> lu may wax dama koy wax te yàlla tax. Mhm. gawuma ne li sénégalais yépp di attente di xaar dina am mënta nekk mais nañ teg lépp ci raay bi ba nga xam ne ne du dëgg mhm. ñépp dinañ xam ne tegu na ci raay bi mhm. mooy sàcc dootul dund gi dina wàññeeku walla dina tane sénégalais kenn ku nekk boo liggéeyee am ku liggéeyul doo am mhm. maanaam lépp ñu teg ko ci raay gi nga bëgg bu ñu tegee lépp ci raay bi waaye nag sénégalais yi nag gëmmuñ nelawuñ dinañ xam ne ne ñii kat fi ñu tegu baax na loolu nag ma jàpp ne ne fii ak juróomi at loolu rek lañ mën a defal sénégalais yi justice bi jaar yoon. Mhm. éducation ci juróomi at yi. éducation bi jaar yoon euh, euh, santé bi jaar yoon euh, dund gi wàññeeku. Mhm. location yi wàññeeku nu mu tuddati courant bi bëgg a rey nit ñi wàññeeku yooyu yëpp bu ñu ko wàññee teg ko lépp ci yoon ba lu waaye am rek mën ci sukkandiku. man jàpp naa ne rek day mel ne wàccoon nañ ak sénégalais ba bu ñu soxlaatee gars yi dolli ñu parce que danañ xam ne réew mu tegu na ci yoon. te yaakaar nga ni Pastef mu ngi ci tànk boobu. waaw mu ngi ci nag mu ngi ci. Mhm. parce que nag réduction de compte yi rek wane ne na ñu ngi ci. Mhm. am na sama benn kilifa dañuy waxtaan mu nekk mu euh, entrepre euh, entreprise la yore. Mhm. mu ne man mosuma fay impôt ne mais xa ñaari xale yi bi ñu ñëwee mu mu ne ma. sama kilifa la de damaa ree bay bëgg de mu ne ma mais xale yii mu a mu ne ma xale yi dañoo yor karawaas ma ne ko déet waay mu ne ma sii parce que man ma mosuma fay impôt mais biñ ma njëkk indi impôt bi dañ ma defal euh, chaque fin du war naa fay deux cent cinquante mille mu ne tam mosuma ko fay ma ne ko nga ne mu ne mosuma ko fay mu ne ma ñun ñëpp xam nga dañuy wax rek mais ñëpp triant lañ du ñu fay mais bi ma gisee ñaari xale yii. Mm. ni ñu commencé liggéey ma ne ñii bu ma fayut musiba am mun na am mm. mun nañ uñi sama sutura. mu ne may fay mu ne ma 6 mois yi rek presque chaque fin de mois joxe naa cinquante mille ci impo ci entreprise bu ma yor mu ne moo tax la ñu jot dajale rek mot na 360 euh, milliards 3600 euh, milliards ci rek maanaam kii fay deux 250 mille kee di fay cinq cent ci loo xam ne ne mu ne moon leer na ma ne daana ma ko fay man trian laa comme ñëpp comme ci lu bëre ci suñu sénégalais du ñu fay impôt mu ne ma nag ma xam ne ne nag ñii fi ñu jëm bu ko bàyyiwul. sénégalais yi dinañ ci gis boppam moo tax instant bi nag kenn du wax méttiwul foog mu métti foog ñu serrer la ceinture ba ñu tegu ci raay bi nag ñoom nag bés bu ñu tegoo ci raay bi def lu ñu war a te def ah ma ne fii laay taxawaat jàkkaarlook ñoom maa ko wax. Mhm. maa ngi ci ñoom de te fu dëgg jotee ma wax ku ma mere je fu ku ma jàppale je fu xam nga lu tax kenn joxuma dërëm xam nga bëri nañ tey ñu nekk passif laa wax nit ñi ñoo leen di dimbale. wala nit ñi ñoo leen di jox. Mm-hmm. ndax dañoo bëgg Ousmane Sonko wala ñu ngi jàppale Ousmane Sonko man laa wax ku ma weddi loo ma sa jox kii ko capturé ko nga dugal ko kenn joxuma dërëm kenn mosuma may lépp lu ma wax sama akulaay taala ak sama ngëm-ngëm laay wax sama éthique la loolu laa gëm loolu laa jàpp kon ma jàpp ne ne loolu nag du ma ci soppi tarafatal ay ni ni ma duggee ci politique noonu laay génne wala noonu laay continuer mais def ci wax ci lu ñu lay xeebee du ko def kenn jaralu ko. Mm-hmm. loolu moom maa ko alors sant la gërëm la bu baax a baax waxtaan bi neex na loolu ñuy wax euh, lu neex euh, wala lu lu lu lu du doy euh, hmm. Djibril Diagne vice coordonnateur Pastef Médina nekk président mouvement Yërmande ñu ngi lay sant di la bu baax a baax looy tàggatoo waxtaan bi xam naa ba koo <laughs> yaatu waaw incha allah waaw wax dëgg yàlla di kontaan di <laughs> remercier tous les sénégalais ñu mm-hmm. seetaan ñëpp nag mm-hmm. di leen wax tamit vraiment suñu mm-hmm. taxawaay lii la mos a doon te defe naa ne lu waay wax it di nga ko mën a vérifier li ma wax nii yëpp lu ci dara amul dinañ la ko dugalaat ci commentaire yi uh-huh. bind leen ko wala ngeen wone ko wala ngeen capturer ko uh-huh. fii loolu moom comme nee ngeen a vaar lañ nekk ci <laughs> vaar dafa xew de lu waay waxati na ko xool moo tax lépp lu may wax uh-huh. ma ne la naa gëm sama aqulaay taala di remercier nag Sénégalais yëpp nag di remercier patriote yëpp nag di remercier la Médina bi nga xam ne ne mooy sama sama fief politique fief waaw en même temps tamit di gërëm nag suma mouvement yërmande di leen invité nag le vingt cinq uh-huh. la ñuy def assemblée générale wàcc nag ci terrain politique bi pour uh-huh. majorité à l' assemblée sunu président Ousmane Sonko ak sunu président Diomaye euh, Diomaye uh-huh. ak patriote yëpp ma ne dañuy saf sàpp ci campagne yi pour ñu am <laughs> député yi ñépp nag lu ñuy wax man dama ne plus de cent mm. xam nga ni ñu ne cent quarante man du wax lu ma kii sans daal moom dinañ ko am jëm kaw. Mhm. loolu laa gëm moom laa yaakaar loolu laa bëgg loolu laay ñaan. te wóolu ngeen seen bopp te wóolu nañ suñu bopp. nañ ko fekkee jàmm incha allah <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatulah bu baax a baax. Djibril Diagne nekk vice coordonnateur euh, PASTEF nekk tamit président mouvement Yërmande euh, nangul nañu wuy nañu euh, ñu sëkk ak waxtaan yu am solo ci wàllu ku jël politique ci Sénégal jamono gi jax na lool mhm. ndax ku nekk yaa ngi jéem a défendre bi nga bokk ñu ngi koy sant di gërëm bu baax. baax a baax mbokk yi ñu ngi leen di sant ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan boobu ba léegi sant nañ leen gërëm leen bu baax a baax di jéggalu tamit bi day am na kàddu yoo xam ne échangé nañ ko loolu yëpp c'était pour débat bi mën a neex mm-hmm. askan bi tamit ñu mën a xam lu xew ci ku jël politique ci Sénégal jaay jëfal ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci wàllu xarala ga jàppandal ga digitalisation bi tax ba àdduna wërngër këpp ngeen ñuy seetaan masaamba Diop ak Moussa Wade cant gërëm ñeel na leen bu baax a baax seeni baxoo fare woon ci kàddu gi jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah